asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa bi xuquuqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weer koor gi yépp tey jii di juróom-ñeenteelu fan bi liñ leen ko waxe woon ñu dalal ci suñu mbokk di sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Fat Mbacke Gaynde ma mu fa yéene ànd ak ñun ci tom boo xamante ne tom bu am solo la bu mat a bàyyi xel la muy li ñu tuddee mondialisation muy gëndaloo goo xam ne àdduna bépp tey gëndaloo na ko su ko defee nag ginnaaw àdduna bépp dafa gëndaloo kon kenn ku nekk war ngaa xam àdduna bu mel noonu naka nga ci mën a doxe ak fan nga ci teg sa tànk ba mën a am mucc ci yenn yàqu-yàqu yi loolu nag incha allah fas yéene nañ ci indil ay leeral tey ji incha allah euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay jaar-jaaram rek ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax ciise ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la dellu si foofu ci Taïf euh, def foofu siigal primaire am maanaam njàng njàng mu suufeem foofu la ko defee ci Taïf ginnaaw bi mu jàngee foofu euh, ginnaaw bi la jóge Taïf dem fële ca Dakar ci lycée Blaise Diagne foofu la defee enseignement moyen moyen ak enseignement secondaire ginnaaw bi mu jeexalee enseignement secondaire am ci la jóge fii ci réew mi nag dem fële ci États-Unis ci dëkk bu ñuy wax New York foofee ci benn institut bu ñu wax institut technologie de New York foofee la defee enseignement supérieur am ginnaaw bi mu jàngee ba jeexal nag la ñibbisiwaat fii ci biir réew mi nekk consultant international nekk tamit ab chercher maanaam ab gëstukat nekk tamit écrivain di ab bindkat ba tax na sax am na ay bind yu bari yoo xamante ne bind na ko Euh, bi ci mujj rek mën nañoo wax ne nga xamante ne ñu ngi koy waaj a génne mu ko ñu koy wax muy tukki géej gi ci Serigne Touba mu koy tuddee al al mujahid maanaam euh, jihaadkat bu mag ci liggéey yi mu yëngatu yëngatu yi mu yëngatu tamit ci la xalaate ne wax naa leen léegi ne leen moom consultant la en même temps chercheur la en même temps écrivain la ci biir loolu ci la xalaate la nag. maanaam doxalinu wàllu àdduna muy ci wàllu politique bi ni ñu koy doxale fi Sénégal xañ na dañ ñoo indi rek loo xamante ni dañ koo jëggaani fële ay jàmbur ak moom ñu ñëw imposé ñu ko te loolu dëppoo ak suñu diine dëppoo suñu aada loolu nag poussé ko ci moom mu xalaat ne kon war naa mën a sos parti politique boo xamante ne euh, la ci la cay la ñuy seeni doxalin euh, maanaam la nga xamante ne mooy nekk seen programme mooy nekk seen objectif mooy doxalin woo xamante ne dafay dëppoo ak suñu diine dëppoo ak suñu aada su ko defee nekk loo xamante ne ñoo koy xalaat suñu bopp te ay nit ju ay jàmbur duñu ko xalaatal ñëw imposé ñu ko ba tax na ci kaw loolu ci la sose parti bu ñuy wax nasu nga xamante ne moom mooy secrétaire général bi fi ne nii kon ci tënk rek euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké moomu euh, moom la ñu dalal fi jataay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy al awlama di mondialisation su ko defee incha allah ci biir waxtaan wi danañu indil benn aspect ci wàllu politique su ko defee tamit dana dugg tamit ci wàllu éducation ñëw tamit ci wàllu santé ñëw tamit ci wàllu commerce international ñëw tamit ci wàllu droit international xamaa naa ne ak yeneen point yoo xamante ne xaj na du ñàkk incha allah mu xuus ci ci biir waxtaan wi xam naa ni bala ñoo ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba insha allah ci altine ji fas yéen nañoo ànd ak euh, ancien ministre euh, Serigne Bassirou Sarr muy fas yéene ànd ak ñun ci njëriñul garab na nag nixma ak nebedaay kon incha allah Serigne Bassirou Sarr la ñuy fas yéene dal fii jaraay bi suba incha allah ci tomboom solo boobu kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawm ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddaalin amin bismillahi irrahmani irrahim wal asr inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw mbokki jullit yi mbokki taalib yi kàddu gi leer na mu ngi ñëw am mën naa gën a yokk waaw baax na bismillah ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen balu àq ci weer wu màgg wi wu sel wi te di leen bal àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Seydil Muxtaar ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom Tuubaa di nuyu bismillah mbooleem ki fi nekkal ba mu daal mooti nga xam ne tey jii moom lañuy ñuy xoolee jëm maam Thierno Ibrahim te donte dugaluma ci loolu waxtaan waaye am naa ab parenthèse ma war a def ci borom daaru ah, danañ ci ñëw incha donte bokkul ci waxtaan waaye dama leen di ñaan ngeen may ko mu dugal ah, di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral mboolem ak mboolem njabootu borom daal moxtu gi ak ñi nga xam ne ñi ngi fi taali bi te yaakaar sëriñ tubaa borom daaru ak mboolem ëtti sëriñ tubaa yi dama defe ne sax war na maa mën a jiital loolu lu jëm ci maam Thierno ngir dañoo ne ci weeru koor alxuraanul karim wàcc ci weeru koor te alxuraan borom tubaa moom ko moom gi mu ko moom aussi lenn li leer na leneen li leeragut ci ñi ëpp ci nit ñi waaye xam ngeen ne weeru koor wi mu wàcc ci lañu dégg ne la jib di njëkk a jib ci alxuraan mooy iqra surtout en laq boobu euh, tam doon fukki baat ak ñeent di uruf bismillaahi rahmaani rahiim te sëriñ bi borom Tuuba am jokkaloo walla lëkkaloo bu ma lëkkaloo bismillaahi rahmaani rahiim jooju ba bind ci ay téere waaye li ca indi maam Thierno ci suñu gëstu bu gàtt jëm ji di wax ak yéen nag li muy wax amaana leeru ko amaana xamu ko waaye damay gëstu kon seenu baax yéen ak seenu xam ngeen gàgganti ma bismillaahi rahmaani rahim ni Sëriñ Tuubaa amee li ñuy li tubaab bi naan rapport ak moom te mu bëgg koo indi ci maam Thierno muy benn ci rapport yu bari yi ndax gëstoo ko ba gis ko sëriñ bi bind waaye ab junj lañuy defe ne moom la ne sëriñ bi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram la feeñ loolu am na xel yu jàpp loola am yeneen xel yu jàpp ne itam ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram moom yi ci la yéeg li njëkk a feeñ ci alxuraan ak li mujjee feeñ ci alxuraan lépp day tënku duggaat ci bismillaahi rahmaani rahiim surtout xalaq moo njëkk a feeñ izaa jaa nasrullaahi mu dugg leen tey ci suñu gis-gis bu gàtt mooy bi borom daaru demee biirum Ndar di négocier ca at yu tuuti ya ci saa yi di négocier gouverneur général pour ñu jox sëriñ bi ultimatum booba sëriñ bi mi ngi mbàkke baar yi sëriñ bi yónni borom daaru mu dem di négocier kooku ne ko déployé nañ armée bi ba noppi boo leen mënee dab nga dab leen ñu xool ba xam danañ taxawlu ngir sa sa mag mën a ñëw wuy si ñu maam ca nu njëkkanteeg armée bi nga xam ne Leclerc moo ko jiite juma ja jiitu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la maam Cerno dabe Leclerc foofu ci boori jeewal tubaab yi sax ñoom géwul lañu bind léeg-léeg dañuy juum ci archive yi ñuy bind ñoom géewul lañu bind man sama document archive géwul moo ci ne waaye boori jeewal la jëmmi mambay faram mbirum loo ma nga woon ca armée ba jëmmi baraan jaw ma nga woon ca armée ba baraan jaw interprète la woon waaye ginnaaw bi la leen dab maam Thierno di wax ak le clerc ne ko pour mu may ñu ba suba le clerc ko may nañ la ba suba balay jant fenk bu ñëwut fu mu ne danañ ko fa fekk le boole ma mbay fara biram loo ak borom daaru mu ànd ak yeneen ñetti garde ñu ne dañuy jëm si Mbàkke Baari ma mbay fara biram loo jaar Louga buñ jaaree Louga ñu ne fas yi dañoo sonn dañuy tekki fas yi wëgg biñ defee loolu ba noppi mu ne dañoo xiif faaw ñu togg reer borom daaru xam ne kii dafa bëgg rey temps bi ngir l'armée coloniale mën a attaquer Mbàkke Baari mu bàyyi leen fa gindikoo ci bi biddiw yi nga xam ne biddiw guddi yi nga xam ne booy dox te xam nga koo jëm te xam direction ba mën nga faa jëm wala mënu coom la loolu xam ne ñëw ba ci sëriñ ci fajar ju xar ji fekk sëriñ bi moom génnoon na kër gi bi mu ñëwee nuyoo bi mu laataan wax sëriñ bi daf ko ne Ceerno dara matumaa wax ba ngay wax ak ndaw ndawal gouverneur loolee te ngay faxas xorondoom yi doon ndox sa wax sa wax wi maa ngi jàkkaarloog ñoom xorondoom wala sangale kon foofu la sëriñ bi duggalantee ak bismillaahi rahmaani rahiim ndaxte xorondoom aw saar la ci alxuraan suratu nam te benn bismillaahi rahmaani rahiim nga xam ne feeñu ci baraatu minallahi wa rasulihi ma ngi ko mottalee ca sooti nam lu googe innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim kon sëriñ bi lu tax mu bàyyi fa nit ñi bàyyi fa lu ne di wax xorondoom sëriñ bee wane xorondoom kon nañ gëstu ban rapport moo am entre sëriñ bi xorondoom bi choisir a tudd te bàyyi ñeneen bàyyi nit tax mu bàyyi nit la lu tax neew ko nit ka nga doon waxal keneen na ca wet waaye daf ko ne xornoom bi nga doon dox bi nga doon faxas sa wutam faxas mooy bëgguma rey xorondoom li loolu la Suleymaan seqoon nag xorondoom yi ba ñuy jóg ànd ak kuréel xorondoom yi waxante ci seen biir ne Suleymaan ngi ñëw kat nan daw dugg suñuy dëkkuwaay ba mu waxanteeg ñoom kon di sëriñ bi doon farlu jaam yi xam ne yonent bu ne am na rapport ak yow njëkk na koo feeñal foofu yi ci xorondoom borom daal ak lëkkaleek leneen la ci mooy fukki fan ak juróom-ñett la bind ne moom la génn mooy ñaareelu bind wi waaye xarit si yow ma sabti rabion wa safar la ko wax li xidmatil muxtaari afdalil bachar la ñu ko wax bëggoon naa génn ci ñeenti fan dogoo ne day génn ginnaaw bu mu duggee xalwatu bi ñooñu ñëw te Daaru Xuddoos mu ne ko ñii laa bëgg a bokk mu ne ko la ci bokkal di xam ngeen xisab yi ba mu génn ñëw sanc Mbàkke Baari ngir xaar nattu bi yegg si bi mu ñëwee sanc Mbàkke Baari ngir xaar nattu bi si mu dem ba ci biir mu mel ni dafa ànd ak lu ñuy xaw a mën lëkkaleeg yàkkamti yàkkamti googu sallallahu alayhi wasallam duggoon bañ ne ko fasbir kamaa sabara ulul azmi minar rusuli loolee moo dugg borom Tuubaa mu ne faw mu génn ci ñeenti fan dogu ne day génn mbir mi dikk na ko déedéet jotagut ñu teg ci ñaari ay bis bu soobu bindaat xarajtu yawma sabti xarajtu sa xarajtu yawma sabti saa mi ñaasa fukki fan ak juróom-ñett kon ñeenti fan lañu ko wax soogu soogu ne fukki fan ak juróom-ñett waaye fukki fan ak fukki fan ak juróom-ñett la génn ñëw dajeeg ñoom jeewal bàyyi maam Thierno ak Cheikh Moustapha ak sëñ Fallou foofee bi ñu dajeeg ñoom jeewal ñu ne ko dañuy dem bëggutoon a génn barab boobee ci fukki fan yaak juróom-ñett ci fukkilu fan baak juróom-ñeent la soog a ànd ak ñoom dem waaye fukki yaak juróom-ñett dana day toog day fanaan ñu ne ko doo fanaan lay xew xew loola bind nañ ko ci suñu téere boobu ndax am na lu xew foofee ca ca ca ceewal bi ko lëkk-lëkk ne da dem sëñ bi ne ko mm, amaguñ ndigalul ci dem jóge barab ba fukki fan juróom-ñett la waaye ca dix-neuvième jour ya fukki fan lëkk-lëkk ñëwaat ginnaaw bu ñu dawee dellu mu soog a nangoo ànd ak ñoom dem waaw kon sëriñ bi mm, li mu feeñ ci alxuraan bari na alxuraan nag day liyaar liyaar nag moom laa nga lay tuddee sign sign language ab signe nag da nga koy décrypter kon sëriñ bi feeñ na ci alxuraan loolu laa bëggoon wax ci njalbeen gi ci lan moo boole sëriñ bi bismillaahi rahmaani rahiim borom daaru ak xorondom yi mën ngeen ci bind téere ay borom xam-xam ngeen kon ñu war a wax ci euh, mondialisation bismillah muy loo xam ne bu ma ci waxtaanee sëñ Ahma daanaka am na yeneen i thèmes sax yu ñu doon proposé waaye mondialisation bii boo ko seetloo dafa dugal mbooleem lu ñu fi mas a waxtaane ak mbooleem lu ñu fi nar a waxtaane léegi nag mondialisation fan la jóge ku ko fent fan la jëm lu tax ñu fent ko li may wax ji bi ngeen déggee mondialisation léegi yàggut yàggut comme bi ngeen tàmbalee dégg terrorisme ak léegi yàggut te àdduna si dox na lu yàgg dégguñu baatu terrorisme léegi bàyyi nañ terrorisme indi nañ beneen baat de jihadisme lu tax lu tax tubaab yi bàyyi terrorisme indi jihadisme te baat bi baatub arab kon bu ñu nee jihadiste yi moom dañ ne musulman yi dong ñooy def njombe yi ñuy def am na nag luñ jublu ca loola ñoom ci tënk diine yi defee ne am diine juy yéeg yéeg bu gaaw ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi te seeni keppaar ñoom Angleterre jigéen ñi ak ndaw ñi ñu ngi tuub di dugg ci lislaam am diina ju yéex ci yéeg jii diine dafa gaaw yéeg bi maanaam monte bi dafa gaaw ci ci tuubeen yi yeneen diine yéex lool bokk ko lislaam ñu ne kon faw ñu wut lu ñu arrêté lii dafa mel ni ab saignée tubaab yi daal di fent ay yëf waaye amaana dinañ ci dugg si li ñu war a njëkk a wax mooy globalisation mondialisation am na professeur bu mag bu tudd Samuel Huntington téereem ba mu bind sax traduit nañ ko ci arab moom moo njëkk a bind benn téere bu ñuy wax clash of civilizations and the remaking of the world order loolu mooy lan ñaari civilisation yi nga xam ne dañoo dem ba jëmmoonte te mënuñoo ànd mu teg ca yokk ne lu ñu war a fentewaate ni àdduna si war a doxe ndax civilisation bi ñëw na indi leen ñoom tubaab yi luñ xamut luñ luñ gëmut lu doon seen pas te loolu la moom laa tudd léegi ne mu ngi yéeg muy diine lislaam ñoom nag ñu ne lii diine lislaam ji day freiné seen doxalin ci anam yu bari bokk na ci économie naa ci joxe benn wala ñaari misaal finance léegi ngeen dégg ñu naan finance islamique jamono yi sëñ moo Moura Obal sëñ Cheikh Obal daaw leen dégg finance islamique daaw leen ko dégg bëkk dem la waaye gis nañ ne mooy yéeg banque américaine yi boo fa nit ñi nga xam ne ñooy ubbi compte bancaire bu ñu ubbee compte ñu leen di teg intérêt yu bari dañuy wuti banque boo xam ne intérêt ya bari wut dañuy wàññi intérêt wala du du am intérêt ñu naan interest free amul intere nit ñi nga xam ne du ñu ay jullit gën a jublu loola te loolu lislaam nangu ko ba boroom xam-xam yi rawatina pakistanais yi ay jàmbaar a ngi noonu pakistanais yi ak indien yi ñu ngi dox li ñu bind bari na téere tasawuf bu ma jàng man ci anglais rek pakistan yi wala indien yi ñoo ko traduire yaaw loo mi diin ñoom laa ko njëkk a ñoo ko njëkk a imaam Ghazali futaatul makki yaag téere téere yi bari na euh, Masnawi Jalaluddin Rumi yooyu yëpp ñoom ñoo ko traduire nga xam ne loola moo sababoon en parenthèse ma ñëw sëñ blaat laaj ko Masalik mu jox ma ko pour ma traduire ko en anglais parce que li Xaadimu Rasuul li mu doon ak lam nam toll fa yàlla ba tey ñoo ngi Sénégal bi daanaka buñ demee New York sénégalais yi la mbiri sénégalais yi la jéem nañ cee dox ay jéego sax nag bu ñu demee Paris mbiri sénégalais mbiri mbiri sénégalais yi français yi ni ñu ci war a duggi duggewuñ ci parce que engagé wuñ débat bi ak ñoom te loolu dafa yeex fi ne kon ma dellusiwaat ci fii nii ma doon joxe ci finance islamique ak globalisation muy lenn nuñ nan lañu lijjantee noonu ba moom Touba ak li aju ci Touba ak bakkan yi rot ci defar jumaay Touba ngir Touba mën a doon Touba muy centre bi ñu soog a décentraliser Daaru Moxti ñëw Daaru Salaam ñëw yeneen daaru ñëw mais lépp Touba la buñ doon xool fi Sëriñ Touba doon ne fa la Touba yem ndax Daaru Moxti bokk ci vingt-huit kilomètres ndax Daaru Moxti bokk ci vingt-huit kilomètres vingt-huit la wala fi Touba la sëñ bii day junj. kon bu ne vingt-huit Touba wax ni yëkkati loxoom ne fee la yem waaye boobu mi ngi njaareem fee joojee nag waxu ko moom ci jëm bopp waaye nañu xalaat yenn ay intellectuel ngeen li li li li nga xam ne moo yéeme ci jataay bii dama jàpp ne war nañ koo def juróom benn weer yu ne walla jàpp na ndax at baat dafa yeex te vitesse su àdduna dafa gaaw des bi gaaw na lool fi ne moo tax lii dafa am solo solo goo xam ne gii defe naa ne bu commission bi bu dee commission la wala comité wala lu mën a doon nañ xool ba xam nuñ koy mën a fréquence bi nu muy mën a yokkoo juróom benn weer yi au lieu ñuy xaar douze mois sur weeru koor wi mën nañoo def ak weer wi yëpp bisu set waxtaan d'accord mais jëmmi beneen waxtaan ci at mi war dañ cee xalaat jëmmi jël lii exporté ko ca ñoom ndax murit yi amuñu présence Dubaï am na woote bu rëy bu fay am Dubaï at bu jot amuñu présence Canada Toronto nu woote bu rëy bu fay am at bu jot amuñu présence Europe Allemagne ak Angleterre ak États-Unis d'Amérique juróomi woote yu mag a mag a mag dimension internationale murit yi duñ ko fekkee te ñun dong fi mu ne ñoo man a yor bi ñu war a mën a exporté muy mbind borom Tuubaa yi kon euh, loolu nañ ci xalaat ndax bu dee dañoo bëgg a delloo si njàng njàng euh, li li li sëriñ bi indi woon kon jataay yi dafa mel ni ñun bëgg dañoo dañ ci réer donte réer moom feneen lañ ko war askan waaye du ci ñun waaye nag la fekk ñuy toog nii di gëstu lii moom mel na ni am na lu ñu ci réew mi ci barab bi ci Touba bara bel bu mën a doon bëgg nañoo dañ ca loola ndax fu nekk nii ñoo ngi waxtaan ci suñ biir waaw ñoo ngi ñoo ngi communiquer ci suñ biir kon loola war naa gën a yaatu kon finance benn la ci loolu léegi nag nu ñu def ba ay banque jàmbur ñëw Darou Moukhty ñëw Touba ñëw feneen di ñu teg intérêt loolu laa bëgg ñu wax ma fa ñu ko teg intérêt bokk ci lislaam waaye fexe nañ ba indi seeni bank banque ko ci digg Touba indi seeni i crédit mutuel jigéen ñi bëgg liggéey lool jàmbaar lool bëgg a dimbale waa kër gi ñu leen di teg intérêt yoo xam ne duñ ca mën a génn muy ab cercle vicieux mën naa joxe benn tur waaye bëgguma def publicité bi benn mutuel la bu nekk Touba ab ivoirien moo ko moom waaw kon nañu seeti commerçant yi nga xam ne ñu fii ne Touba ne Daaru Salaam ne feneen ngir yàlla kilifa yi woo leen lii ñuy tudde crédit mutuel te ay murid dong di ca liggéey ca Touba ay taalibe dong di ci liggéey ci Daarul Muxti ak feneen yéen xanaa wul leen koo mar a def yéen commerçant yi nga xam ne yéen ngi yaakaar suñu ak borom daaru ñeneen lu tax waruñ koo mën a def ñoo ngi fëgg suñu dënn ne magal gu jot nañ dépensé nangam ci ay milliards nit ka ma njëkk a wax ne ma Mbàkke du murit du tijaan c'est un intellectuel bu jàngee Harvard googu ma tudd sànq ci Samuel Huntington ci laa dellu si mu ne ma Mbàkke mais wax na xalif général moo bi banque boppam booba sëñ jamono sëñ Saliou la ndaxte booba dafa gis ne sëriñ Saliou mi ngi ci banque am moom boo xam ne moom jëm jëme yoo xam man moom moom pour cent muy CBAO benn yoon laa koy tudd mu gis ne la fa sëriñ bi def boo ko joxee caution ak ay texte ku ne mën na koo bind ci experts yi ñu jox ko banque mu ne lu tax sëñ bi moom wutul banque boppam mm-hmm. amul sens ci laa ko indee ci sëñ bi ne ko jëm jii kat xam-xamam dafa màcc jëm ci mbirum xaalis ak koom-koom économiste la dafa gis ne la ngeen denc fee mën naa ubbi banque te leneen yeneen yi nga xam ne dañ koy seexlu ci banque mën naa ubbi banque boo xam ne yéen a koy moom murit yee koy moom donte doo ko mën nga ko bañee tëdd banque murit léegi xam nañ banque centrale la fa ne a ci ñëw waaye ubbi banque boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di ci lepp te doo am intérêt loolu mooy finance islamique kon dañoo toll jamono joo xam ne war nañoo jóge ci étape bu wax ak discours jëm ci étape bu jëf te mondialisation bu dee oto la bu yor boîte à vitesse la wax stick shift vitesse yi wala automatique lu mu ci mën doon donte oto bu bees la boo taalee ba noppi toog ci boo dugul vitesse doo dem mondialisation bii nag oto bi vitesse bi mooy politique dañ ngeen ñu ne politique agricole jiw yi ñëw na gerte gi ñëw na bu baaxee ñun nangam lañ koy jënde loolu mooy politique bu jëm ci mbay ñu ne politique éducation nii kat la ñuy jàngale syndicaliste yi jóg wax fii kenn ku ne jóg wax fee loolu politique bu jëm ci njàngale ñu ne politique bu santé bokk na ci tomb yi tax ñu naan planning familial loolu ci tubaab bi la jóge planning familial tubaab bi nee nañ àdduna si bu doon benn néeg la ñi fiy tëdd dafa bari ba néeg bi faaw ñu wàññi ko wala ñu xool al mu ñu koy wàññee loolu moo sabab ñu ne dañuy war a yokk faatu bi wàññi njur mi lu amaana lu diis la ci yéen ci ñenn ci yéen waaye ñenn ci yéen xam ngeen gis ngeen ko information boo xam ne bii mu ngi ci mu ngi ci information waxul chariatul islam yi de leer na ndax àttewuñ fa lislaam kon nit jóge na fële dikk ci suñu dëkk bi ñu gor moom ko nañu lii ngeen fi àttee ci biir démocratie nag loolu ab pas-pas moo koy mën a dindi pas-pas bi mën naa jóge ca kaw di présidence mën naa jóge ci parlement bi bu dee am nga dara ci parlement bi dañuy bind proposé dafay proposition ne lii kat lañu bëgg mbir mi doxee ni Touba ak Daaru Moxti ak barab yooyu nga xam ne Serigne Touba ak i ñoñam ñoo ko taxawal waaw ci biir loolu segam parlement bi mën naa def mën naa des ci président li ma leen di proposé mooy fi ne nii moom weesu na waaye. bu juillet weesoo te ñu def élection législative yi ba noppi ngir yàlla yéen boroom xam-xam yi ne fii nañ proposé kilifa gu ne ci yoonu murit ñu ne kër kër boroom daaru kat dañ fa jële ñaari nit kër sëñ Massamba Diop Samb kat ñaari nit kër gu ne ñu indi fa kenn diggante ko sëñ Touba bokkal maam Thierno maam maam maam Morane Sali ak ku mu yar maanaam ñi ñi ñi cheikh si ñaar ñooñu doo nga fi ne sëñ bi ku mu bokkal sëñ Morane Sali ak koo xam ne gis sëñ moo la si yàlla na kër gu ne joxe ñaari nit na kër gu ne joxe ñaari nit ñu ne ñii kat ñooy doon candidat yi nga xam ne ñooy dem ca parlement la le problème rek la problème yëf yi daal di sotti du ñu bàyyi benn parti politique muy ñëw ci Darou Moukhty ne man kat PDS la wala Nasru la wala APR la déedéet na borom daaroo borom daaru salaama borom daaru minal kenn ko ne joxe yi nit dañoo bëgg ay député ci parlement ba muy arabophone di anglophone di isophone lu mën a doon ko defee le problème est réglé waaye ñun dañuy toog rek ne yàcc loolu mënta way sëñ bi waaw bu ñu ko defee danañ danañ la fekk sa digg kër dama jël digg dëkk bi sa digg kër lañ lay fekk di la wax ni nga fay dunde yow moom kër gi foofu la génération yi di ñëw bëgg a jëm ak ñun ñaam pas-pas ci borom Tuubaa ab programme la bu ñu tëral sëñ bi le hasard le hasard n'existe pas mbir jékki-jékki rek am déedéet lu ñu togg la ba mu ñor ne ah nañ nañ teg chemin A bu jàllut ñu teg chemin B bu jàllut ñu teg chemin C lu ñuy programme la France lay jóge France mi bëggoon a suul borom tubaa te mu tëleen ñu bëggoon ko lakk mu tëleen foofee lay fiy jóge ngir tubaa doo nga leen jaaxal ak murid dafa mel ni li ëpp ci ñun buñ ne poli politique dafa salte ci sëriñ si dafa salte duma ci dugg duma ci wax dafa bari wor waaye nag <laughs> bu màggal ñëwee ñu daal di indi ay ceeb ak i dawlin ak lenn ci xaalis sëriñ bi noonu dafa salti daal di jël ah bu jëmm ja nga xam ne bii nee nga dafa salte daa mën a fen bal ma ci wax ji daa mën a wor ñëwee ne la sëñ bi kat ñaanal ma nga daal di koy ñaanal waaye da nga ne doo ci laal dara ngir dafa salte man nag loolu day yàq bopp man je comprendre ma mbir <laughs> ne ne dafa wert ba mu yàgg nga ne dafa jaune ci même mbir bi ab sagar weex tàll sa kaala gi weex tàll nga xool ne dafa weex gëmma see bët xëppi daan déedéet dafa ñuul loolu xel da ko nanguwul kon damaa defe ne nañu nañu dellu ci alxuraan ak sunna nañ dellu ci alxuraan ak sunna ba xam lii li ñu tubaab yi di proposé ci mondialisation bii njëm nga xam ne jëm si na ci ñun te ñun ñoo mën a taxaw ne du fi amee mu bañ a am ñun nag bokk nag ñi gën a yàq français yi ndax c'est une ancienne colonie française senegal bañ nañ ko ci politique éducation dugg leen ci école yi ngeen laaj lu ñuy jàngale ci borom daaru école primaire du mu ngi fi hmm? lii si am na fi xool leen pa xool leen xool leen sujet histoire yi matière histoire yi ngeen xool ba xam lu ñuy jàngale borom daaru bu dee bind nañ ko ba noppi ba teg ko ngeen laaj leen ku leen wax lii bu dee gis ngeen ne ay ñoom dacaane ku leen ko jox xam nga ñu ngi waaj a bindaat histoire Sénégal ci fan yi dégg ngeen ko ñu ne Iba Der Thiam lañ ko jox ak beneen kuréel waaw ndax mën ngaa bind histoire Sénégal fàtte Serigne Touba ak borom daaru am borom daaru moo doon négocier ak le gouverneur général da dul n'importe qui daal moo doon négocier gouverneur général pour mbiri sëñ bi mi nga xam mi ngi nekkoon ci mission. un jeune homme fanweeri at ak nangam ndax matoon na ko ci la toll fanweeri at waragoo am sax maturité di négocier gouverneur général nga xam ne Sénégal moo nekkoon capitalu AOF yilif ñi ci des yëpp Guinée Burkina Faso ñoo ñëpp mu yilif leen ndawul fanweeri at bu ñu formé nag dem di négocier gouverneur général mbir noonu la tëdde woon léegi nag ngay jàngale histoire bi mute ak Merlin ak Leclerc ñi seqoon yëf ya ñëw indilaat la cent ans après ay texte book ne la histoire bi nii la tëddee nga daal di bëgg gëm ne nii la tëddee ah di ko lañ bëti xool ba xam waaw ah, kon nañ xool li ñuy jàngale ci sëriñ bi la mu doon ak ñi sëriñ bi yar la mu doon kon moo tax ma ne la politique éducation ñu ngi koy def ci gone yi lu ñu leen di jàngal lu mu ndax li ñu leen war a jàngal la wala lu keneen indi la dama koy lu jox exemple États-Unis d'Amérique bi noir yi demee ba gis ne dañ leen doon nax kàngam yi dañoo daje ñoom borom xam-xam yi daje ne li ñuy jàngal demeewut nii nañ gëstu jiwaat bindaatal suñu bopp suñu histoire loolu noir américain yi def li ñuy jàngal fi ne ci noir ci États-Unis d'Amérique ci noir yi ñoom ñoo ko bindaat kon nun defe naan yoon murid toll nañ foofu fu ñu war a gëstuwaate histoire bi ci kër gune ak ci yoon wi nam tëddee ñu bind ko def ay centre culturel yoo xam ne yi dëkk bu borom Tuubaa am bu ne wala kokam am ko dañ ko fay def dégg nag à national ñu négocier li ñu war a dugal ak li ñu war a génne buur ci li ngeen koy tudd yéen walla président de la république yéen yéen a koy fal ak lam àndal lam àndal mooy la ngeen ko jox ci pouvoir ne ko yaay décréter yaay am fond politique yaay def lii lépp yéen a kon buur moomee da ngeen di exigent par rapport ak moom boo lëgee yaa waxoon lii di ko def boo xamee ne xamoon nga ne doo ko def waroo ko a wax bi nga demee ba nga xam ne conditions yi changé na ba nga xam ne wóor na le mënoo ko def nga ñëw expliquer li tax mënoo ko def et cetera maanaam buur yaa koy fal yaay jox yaay jox sa sa carte yi ngay xeeb boo duggee booy wote ngir président de la république dénk ma yëf yi ma xool man ñi ma ci doy ginnaaw doyloo ngeen ma doyloo ngeen sama xam-xam ak sama jaar waay sama jaar jaar dafa euh, fekk nag fi mu ne Mouhamed Mbacke mii da leen jege bu jógoon na damay laaj réew mi ah Mouhamed mii dong moo fi doon fël ay coupé bëkki dem loolu moo daloon borom tubaak ñoom nekkaloon xëy na jege léeg day am handicap bu baree baree bu ci ne waaye li bëgg a wax mooy joxagu leen réew mi dongob daara am déet Senghor la Abdou Diouf la Abdoulaye Wade la ak makkisal laaj leen ci ñeent ñooñi kan moo jaar daara yi sàngam dafa jàng alxuraan laaj leen lool waaw kon yéen li ngeen alxuraan mi ñu jàng muy lépp gouvernance ne ci biir science ne ci biir lépp na xool maa koy maa koy wax keroog ci Kazu Rajab gi xool tekkeral bi ñu tekkeral ci barab bu sell bi di jumaa ji suuf saa ngi wëndeelu nangami junni kilomètre par heure waxtu wu ne te xool ñoo ngi nii tekkeeral xam nga loolu boo ko waxee dongub daara bi du ko xam waaye bu de demee université tam li gis science science daal koy indil nag ne ko ah suuf si kat mi ngi wëndeelu jant bii wëndeelu weer wi wëndeelu ñuy wëndeelu ñoom ñëpp di dem te sunu borom waxoon lool waa shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala layli saabiqun naar ba kullun fii falakin yasbaxoon ba kullun fii falakin yasbaxoon ñi ngi wëndeel rek te xoolal <laughs> kullun fii falak kullun fi falak keef laam faagi yaagi nga ndiwaat falak fële boo yéegee fii tàmbalee ko ci mujj gi falak gis ne yaagi ne ci digg bi mooy symboliser ni ñuy wëndeeloo ñoom ndax boo tàmbalee fii danga nga danga nga bind kullun fii falak boo tàmbalee fee yéeg da ngay bind kullun fii falak waaye yàggee ne ci digg bi muy symbolisme ni ñuy wëndeeloo ñoom ñoom ñett ci seen biir jant beeg suuf seeg kon loolu la science indi fan yi yàggut ndax fan yi il y cent ans yàggul mille quatre cent ans la ko alxuraan waxoon il y a mille quatre cent ans na ñu ngi wëndeeloo il y a cent ans la alxuraan waxoon ne niir yi ngeen di gis dafa diis da nga gis niir yuy am ndox bay peser trois cent tonnes aw niir nga dugg avion muy def nii poche poche d'air yi luy peser trois cent tonnes ci air bi dara téyewu ko ci kaw dara téyewu ko ci suuf suñu borom waxoon loolu ci alxuraan bu la nee defal finance islamique war nga ko mën a dégg bu la ne attewul sama atte war nga ko mën a dégg bu lay jàngal gone yi sama jàngin war nga ko mën a dégg kon yëf yi fi ne ñun ñu am problème tasawuf nag la ca jiitu mooy nga seetlu say ayib da ngaa bëgg lekk waa ñi lekk gi da bari nelaw waa ñi nelaw yi kon nun nañ blâmer suñu bopp nun fim ne nun na nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe dans pays nun la murid yi laa ci jiital murit yi nag ci dégg-dégg borom Tuubaa ñëpp a ngi ci biir tijaan amut ci borom Tuubaa murit am est-ce que lu wirdin yuridul muridaat loolu la wax ah kon ña ka gëm Cheikh Ahmed Tidiane murit la gëm Jeylaani yi murit la ka gëm Tayfoor murit la gëm Waysul Xarni yi murit la ñoo ñu bàyyi murit lañu loolu sëñ Tuubaa wax fii nag lañ ñu posé le débat ne murit baa ngi nii tijaan baa ngi nii xaadir baa ngi nii laayeen baa ngi nii yéen bokk lislaam waaye nag bu ci kenn laalee sa morom tubaab bi tubaab bi day proposé la proposé léegi sa dégg bu bu bu bu soriwut nga naan ah kii kat sama noonu waaye nag moom bu ñëwee ne la proposé dara ci yëfam nga daal di jël gëmm daal di jël kon nanu seetlu ne alxuraan dong mooy dëgg rasulullaahi moom lañ yónni signature boobee ñuy waajal 5 septembre la ko waral bokkoon na ci dañoo waroon a weddi ne alxuraan dëgg la ñoom ñoo ko doon weddi boobu fi ne nangu nañ ne alxuraan dëgg la parce que science alxuraan ënd na junjul na ko junjul na ko ci ay barab da koo junj ci nit ak ci jaww jeeg ci suuf seeg ci géej jeeg loolu ne junj na ko fu ne junj na ko fa léegi ñoom découvrir nañ ko waaye léegi nag il faut être conséquent c'est comme nañ ko ba yëf yi génn kon nag nañ soppi doxalin ñoom ni ñu bëggoon a soppee doxalin pas-pas yi bañ ne choc civilisation dafa am Huntington moo ko waxoon ne choc bi ndox mi daal mënta laa ak dëwlin gi kon nañ fex ba dëwlin doonum ndox mbaa ndox mi doon dëwlin loolu lañ wax mooy l'islam dafay déranger ndax boo ne l'islam da ngay génn intérêt yi boo ne l'islam dootoo jaay sàngara boo ne l'islam dootoo jaay produit de cheveux ba tax ngay bëgg a génn say karaw ci mbedd yi xam nga loolu yëpp économie la kon mode de vie buñ bu ñoom boo déggee ñu naan ay valeur buñ nee valeur rek na nga xam ne seen déggin ci seen déggug valeur mooy seen dundin ñoom seen maanaam civilisation ni ko Huntington waxe ah kon ma defe ne euh, dañoo war a ñun ci senegal gi ñu ne murit yi i jàng français ak arabe ak anglais ak espagnol lu ne xam ne lii tëralin wii moom li fi système bi système bii fi ne baaxut dañ ko war a dindi ay nit a koy dindi du ay jinne ñëw dindi ay nit a koy dindi nit ñoo ñëwee boroomi xel lañ ñu jëfandikoo seenum xel ci anam ñoom gën a rafete ngir dindi ko bu ministre ñëw wala président de la ci boppam ñëw ba nga tuutal sa bopp yow dongob daara bi ndax li nekk sa dënn moo gën la ne ca moom wallaahi lazim loolu laa bëgg ngeen ngeen complexe boobu na na dañ ci noonu li na ci sëddën sa alxuraan moo gën moom la muy def ndeem bi nga ànd tubaab bi ndeem bi nga ànd tubaab bi kon nañu décomplexé sëriñ tubaab ba muy bañ Modou Khayri Jaxate mas na ma ne nangoo nañ suñu am satu mu nangoo ci maam ci yàlla mu ne ko ba mu bureau xam nga maam Thierno la sëñ bi daan yónni yónni yi bari woon na boobaa ci mujj 18 safar euh, maanaam 17 safar moo ci mujj waaye la ko jiitu moom la daan yónni waaye bu ma ko yónnee am na yeneen boo xam ne dafa ñëw ci bureau ci gaañ ne leen ana yéen gone yi ku ci ku ci ku ci woo sama mag ñu baax yéen gone yi leen wax booba <laughs> ndaw li lantinoor bi traducteur bi wax mu ne ko ndax wax nga ko ne la ko waxee ne loolu mooy fit wa fit dafa am nag nu ñu ko formaté mooy fit wa fit ci dëggu waxuma fit ci xaru dafa dëggu moo tax ndax gone lañ par rapport ak sëñ bi ana ku ñu doon ñoom bay woo sëñ bi loolu mooy wax ji kon damaa defe ne euh, pas-pas boobu te 17 safar boobee sax ba ba maam Thierno yóbboo bataaxel bi garde yi xam nga garde yi ne gouvernance dañu yor ay gants yor ay plat plat xànjar yooyu nga war cee teg bataaxel bi lettre bi mu dem ci soog dem ci gouverneur mu ñëw yëglu indi ko ba ci buntu gouvernance ba ci bureau gouverneur gàddu bu ñëw plate bi mu ne ndaw lii mu mu ne ne waa ah, ku ku làkk wolof la mu ne ko da ngay teg bataaxel bu mooy buntu gouverneur mu ne ko sëñ bi daf ma ne sama loxo ak loxoom waa ji def fa dix minutes négocier ñëw ñëwaat ne ko teg ko fi mu sama loxo ak loxoom te du ma fi jóge nag te moom joxuma ko <laughs> sama loxo loxom te faaw mu jot ko gouverneur mujj ko woo soo ko taxaw nag négocier léegi nañ ko may 24 heures moo waral dikk ba jeewal ga ñëw ci sëñ bi la ca teg kon mondialisation fas way takk charrette ba mooy politique ñu soog a indi nag teg ci charrette bi tamaate jeeg ceeb beeg dëwlin jéeg meew meeg yooyu mooy yi ci des politique gu éducation politique gu santé politique gu commerce international da tudd sànq loo xam ne lii dama ko naroon boole ci thème bi ci biir trade trade mooy commerce muy niima ndax man dafa mel Bachir Sa moom la war a waxtaane meññeet man damaa dem Inde dem fu ñuy wax New Delhi 2006 la lii ngir gis garab yu bari yi te ma dégg ñu ne ñu koy jëfandikoo ma dem fay laaj ñu ne ma yéen seen gouvernement yi lu ñuy xalaat ma ne ko ci lan mu ne garab yu bari yi ngeen yore di ko yàq ma ne ko garab yi nii kon mën naa doon dara mu daal may indil génneel pâte dentifrice bi gën ci pâte dentifrice yi. ci nii maa lay jógee man moom laay jëfandikoo fi ne yor naa ci échantillon jox naa ko ba mu jeex sax waaw pâte dentifrice garabu niimaa yi ngeen gis ci dëkk bi pâte dentifrice bi gën ci bëñ ci niimaa lay jóge shampoing bi gën ci karaw ci niimaa li tubaab yi tuddee démêlant jigéen ñi nañ ko gën ci karaw ci niimaa lay jóge désinfectant bi gën ci góom wala lu xeet yooyu ci niimaa la jëm engrais bi gën ci engrais yi ñuy jëggaani ci niimaa la jëm waaw kon léegi nun ñoo ngi yor ab richesse boo xam ne bii liñ ci xam mooy bu sëqee lool ñu jël ñu daggar bi daal di jël sànni xam naa Mohamed bis bu xamee ne benn socc niimaa ca Amérique benn dollar lay jaar socc bu toll nii téeméer dërëm lay jaar garab yi ngeen dagg di ko sànni nga dagg cib socc toll cib socc boo ko yóbboo Florida téeméer dërëm nga koy jaay waaw ah, loolu lañuy yàq ni ñuy yàq loolu ci gouvernance su environnement bi garab yi noonu la ñuy yàq ci gouvernance su li ñu waroon mën a indil banque finance islamique te banque yaa nga fees del Touba te moomuñ ci benn banque yaa nga fees del tubaa te moomoo ci benn loolu nag nu ñoo ci mën a wax dañuy toog xam nga tubaab bala ñoo génn mbir dañuy tëju juróom fukki at di ci xalaat nuñ koy yàqe société niñ koy yàqee yomb na ñu ngi wax ci télévision yi ngeen di wax programme yi ndax dégg ngeen benn parlementaire benn député ci niñ koy waxe mës bind projet ne programme yi ni ñu koy defee kat baaxul ci ndaw yi baaxul ci élèves yi baaxul ci sëy ndax dégg ngeen benn projet de loi benn proposition de loi bu ñu mas a bu jëm ci nañu réguler li ñuy génn télévision yi ak ni ñu koy génnee ak waxtu wi ñu koy génnee kon député lu muy jariñ léegi waaw ah, bu ngeen falee Mohamed député na ngeen ko fal député mooy député borom daaru boo léegi buy ba ndax daa bëgg a jooyante réew mi at mu jot laaj bu ñëwee fii laaj leen ko ban proposition de loi nga def ban projet de loi nga def moom leen ngeen koy laajee boo ëllëgee moom Mohamed laaj leen ko kenn ku nekk ci cent cinquante yi wala cent soixante quinze yi léegi dégg naa cent soixante quinze la kon député am na nu mu war a nekkale askan wi foofa bu doon dañoo bëgg démocratie donc kon dañ naan ah région yi kat nii la toll région bu ne pois électoral nii la toll région bu ne nañ bàyyi ñooña tànn seen député bopp ni may proposé nii ne ne murit nañ ko defee noonu nañ tànn suñu député bopp au niveau de chaque région ñu daal dem dëggee mën naa simple lool waaw ah, kon léegi dafa mel ni euh, ci fànn ak télévision yi liy génn ak dox su muy génn ak niñ koy génnee xoolal koor gi série yi boo xasee dugg bouquet mais Chine un milliard deux cent un milliard cent personnes ñoo fa ne te dañoo réguler seen lay génn télévision dañ ko réguler duñ ci génn loo xam ne lii day yàq société chinoise xalaatuñ ko lu toll ci un milliard deux cent cinq cent mille personnes yow doonu ko fukki million ak juróom nga ne mënoo réguler kon da amul pas-pasu bu régulé da la yitteelut la yitteel nag mooy la France di wax mariage pour tous loolu la France wax ba ki dem ci làmmiñu Macron mi toog dem na ci école man yor naa ko partagé naa ko euh, benn kindergarten xëy na mm, euh, préscolaire la mu fay wax ñaar ñu bëggante. dafa duggee ci waxtaan wi ñaar nit war wala ñaar doomi aadama war nañoo mën a bëggante nga ne ñoom jàpp ne góor jigéen lay wax ñu dem ba fu mu koy tëjee mu ne même ñaari góor war nañoo mën a bëggante mag na ko yem li may wax nii wax see dugg YouTube ma nga ma nga Israël <laughs> ma nga France ma nga États-Unis ndax dañoo bëgg contrôler fi mu ne li ñuy wax lu mu doon liberté d'expression moo tax fi ne Sénégal coow li bari fi liberté d'expression caricature yeeg liberté d'expression yeeg lu ne daaw daaw 2015 la woon Charlie Hebdo ci caricature léegi laa koy wax sëñ Gallas mii am na lu jiitu Charlie Hebdo Salman Rushdie fàtte ngeen ko fàtte ngeen Salman Rushdie moo bindoon les versets sataniques bind téere boo xam bi nu ne da ko ŋaññaal ko nag Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ŋaññ wu ñaaw wu ne def na ko ko droit de l'homme ci jóg ne am na droit wax xalaatam Khomeini joxe fatwa ne nañ ko rey ko rey ko ne naa la jox 10 millions de dollars Salman Rushdie moo jiitu loola bu ñuy ñaawal suñuy kilifa ci ay sketch lañ koy jaar théâtre deux imams dans le vent xaw ma quatre vieillards dans le vent xaw ko tuddee ndax mas ngeen a gis ci sketch yi ñuy def ñu ñaawal ay prêtre bu ma am ñaata yoon lañ ñaawal prêtre ak ñaata yoon lañ ñaawal imam borom kurus xam nga boo dee banaliser le sacré boo dee woyefal lu diis da nga koy woyefal ci wax ñu ne ah garaawul waay da nga coow li am ci ñettaat yi weesu ci yoonu murid murid gi coow li fan la jóge jékki-jékki rek coow yi am te dakk gudde coow yaa ngi am rek dañuy planifier buñ doxee at nañ joxe benn coow ngir nit ñi buñ tàmmee coow leeg ŋàññ yi ŋàññ sëriñ si dootu leen féete fenn ñu soog a dugg ci loi yi nag kon dama defe ne nun ñiy jàng aslëf ci alxuraan ak sunna ak leneen lu mën a doon war nañuy seetlu di contrôler ñii ñu bëgg a jiite ñan lañu sëñ bi ki la ki la ki ki mën a jiite ëllëg réew mi <laughs> mën naa bañ a jàng sax tubaab Imam Khomeini jàngut français jàngut anglais leneen la jàng waaye am na autorité suprême bu ñu gis ñoom iranien yi te ndax xam li borom Tuubaa fi borom Tuubaa jaar day la si naa lii di baax baax baax wax bu diis la nag la Seydina Ali di baax baax baax suñu borom seetaan na ko dégg ngeen li ma wax dafa diis ci yéen xëy na Seydina Ali dañ ko boom am déet doo dañ ko boom wàll yu la de bokk na ci góor yàlla yi itam waaye suñ borom seetaan na loola am act ba am suñu borom toon loolu ci borom Tuba te yóbbu nañ ko ba libre Libreville dem naa def naa recherche fañ ko njëkk a suul. fañ ko njëkk suul jege bàmmeelu ka njëkk doon président Gabon ba tax sëriñ bind bay bayit woo xam ne mu ngi ko waxee ne radamara bi ma aduwiya xafar li darar yi wasanani aman kafar wala radamara bi ma aduwiya xafar li darar yi wasanani ani nafar sulli nañ ma dañ koo suuloon dañ koo suñ borom sulli na ma ca pax moom nga xam ne noonu gas nañ ko ngir lor ma loolu sëñ Abdul Ahad doon nett li bañ ko suulee dafa jékki-jékki amul ku may gis ku sëq ci mbaggam sànni ko ne ko Ahmadu jógal liggéey mooy liyaaru bayit bi bayit bii sëñ ba xas dëggam ko tënkee mi ngi ko tënkee subhaana rabbina in kaan wa'du rabbina la maxoola loolu tax ma ne seetaan na keet nangu la seetaan kii ay fee rek laa leen di wax sosuma lenn seetaan na kee nanguwula seetaan kii ñu jële ko nii sëñ bi lakk nañ ko jël nañ ko lakk ko murit yi nekk ñu di wax wax waxi daanukat naan dañ ko lakk ak dafa dañ koo lakk maa yomb ba lañ ko lakke dañ ko doon jéem a lakke suñ borom bañ xasida googu mu tënkee radito rabbana radito anil mawla bi seet ngeen koy jàng ak xasan yal xannaanu min kay di man xalaa wasaara kanaaru xel li baax di maa yomba loolu kay wasaara kanaarul xilli lu mu ci jublu li baxri maa yomba raditu anil mawla taala bi rabba sañ bee ko bind kon kay nanguwuta seetaan kii léegi nag lu tax nangu koo seetaan mooy coow li bu dee bu doon daa amul xol kon du ko deg ci xolam loolu la ñuy mën a wax moom rabbul izzati wal jabarut hmm? ku mel nii soo ko amee damay wax sànq ne lim leen jege moo tax dafa ñuul di wolof xëy na waaye ab communiste nee na ma bu sëriñ Touba feeñ woon ca Zuluya wala ca Chia ya not nañu àdduna si xam nga lu tax ma ne Zulu yi Zulu mooy jëmm joo xam ne dafa bindoo ci jamono bi leen anglais yi doon jéem a not day daw juróomi kilomètre ci tànkam soo nga tàmbali xeex kooku mooy endurance. endurance chiite yi mooy ñi nga xam ne bii ku ca demutoon ku ca faatutoon ca armée ba jamonoy xamee ni da ngay rëcc looy dunde gis na seetaan naa ci interview ci ñoom kenn kii rëccu lu tax faatuwul ca booba te xamee ne leen doon yabal imaam Khomeini nag moo jiite woon république boobee ñu tudd république islamique Iran imaam Khomeini moomee am na ku ma ne bi sëñ Abdou Xaadir Mbàkke di ko jàngalul ay kaamil fekke na ko ne woon kabal sëñ Abdou na lu na ay kaamil imaam Khomeini te tal tal tarafal nañ ci sëñ Tuubaa ñaata téere la bind ñaata téere la sëñ Tuubaa bind lim bind nu mu ko bind ak lim bind nu mu ko bindee nax jul balaxa <coughs> nax jul balaxa ñun ñëpp xam nañ jàng nañ téere si naal yi dafay wax ne na nga jàng dëgg ba xam jëmmi dëgg mooy lan nga soog jël yatu dëgg woowu yi mesuré teg ko ci nit ki mesuré ko ba xam moom moom mi mu ngi ci dëgg wala déet waaye diw mooy sama baay diw mooy sama maam di tel tel loo neex nga def loo nga wax ba pare ne duñ la natt ci yatu dëgg da ngay wax lu neex rek xaw ñu natt la ci yatu dëgg la borom Tuubaa da Seydina Daawuda alayhi salaam nga xam ne càllalam gépp ay yonent lañu ak ñu yor ngóor yonent lañ ak ñu yor ngóor dem nañ bay def nii suñu boroom am lu mu leen doon xisaabe ci bu ko mënee tudde noona fa ngeen nekkoon bu leen fa génn ci jéem a farlu jaamu yàlla ak àdduna àdduna gi ma doon ngóor gi Suleymaan gis ngeen nu mu nekke woon buur la woon waaye teewul nubbu wa gama nga fa ab yeneen la woon ku wax ak lépp lu yàlla bind sëñ Daaru Asan Njaay mi nga xam ne sëñ Tuubaa moo ko baaxee woon ne ko bala ngay faatu di nga di nga di nga tàmbali xam li li picc yi wax lu mu doon ah, te kenn ku ne loo mën a documenté la kon ñun dañoo xamagut liñ yore muy muy Xaadimu Rasuul yëf yi dafa mel dañoo rémb loolu Cheikh Ibrahima dégg naa danaa sëñ Tuubaa dañoo rémb dafa mel yëf yi dafa ëpp ci ñun maanaam dañu dañoo gisut jëmm ji li mu doon lu mu doon maanaam ñun fi mu ne yëf yi dañ ko war a exporter màggal Touba warta doon pape bi buy jóg pape bi jiite Vatican buy jóg CNN am ci yoon Fox News am ci yoon France 24 am ci ku ne am ci yoon ndax nangul nañ ko xalif général xalaatuñ ko sax au contraire da ngay gis ay journalistes yuy bind di saboter xam nga presse dañoo wax ne mooy quatrième pouvoir ci àdduna exécutif législatif judiciaire gars yi daan ne indi presse bi positionné ko mooy quatrième pouvoir bu yett yi wéyee daal exécutif mooy président la république kàddu askan yi ñoo ko jël jox ko ne ko faral ko législatif mooy ñiy bind ñi ñiy xaatim luwaay ni ñu war a àttewoo ni ñu war a dunde mooy député yi judiciaire mooy àtte yi nag jëmmi àtte yi yan àtte la ñu war a àttewoo fekkee dañoo bëgg a ci suratul euh, man yàq ma façon zalimoon loola dama fàtte téere ba seytaane bari doole waaye téere bi sëñ sax bindoon di kalimatullahi yéen ulya sëñ Abdul Haat signé ko sëñ Abdul Xaadir sëñ Saalu sëñ Chouaib sëñ Mourtada sëñ Abdul Aziz Si Dabaax Canaba kilifa yi fi nekkoon daal te lu ko sababoon benn lu ñu bëggoon dugal ci parlement bi ci code la famille muy dal ci kaw lislaam ñooñu bañ am député PS ci jamono bu ca démissionné ku sell la woon ne du ma seetaan Senghor def lii man dafa na jël génn génn nekk bañ nekk député ñu wax mu ne nañu ko indil téere bi ñoo ko ko mu nañ ko indil projet de loi bi ñoo ko ko mu xool ko daal di jóg daal di bind tontu daal di yónni seen blaat lii fi nar a xew wax naa ci sama xalaat wax ci sa xalaat def ko noonu sañu blaat ba gaa yi jeex góor yàlla yooyu jeex mu dem Tijaan wax ko noonu ñoom ñëpp ñu signé ko ne nanguwuñu lii ñu fi nar a indi ah naa ko naa ko jox Mohamed parce que loolee tey mooy amaat référendum bi weesu am na ci poñ boo xam ne dafa wax ne <laughs> boo amee sa doom mu am fukki ak juróom-ñett. exactement dix-huit ans sañ naa génn kër ga dem jëli appartement donte jigéen la nekk ak ku ko neex di def lu ko neex te doo ci mën dara boo ko laalee yoon am ci yow yoon loolu moo génn ci référendum bu yàggut bi ñenn ñi wote ko wii maanaam sëñ bi àdduna yàggut te yeb doxu yàggut bu waxaan tijaan daan ma woo ndax lam daan wax tey jii mi ngi dox ba tey ñu ngi koy yaakaar yaakaare ci jëm yii fi ne seen yi mënuñu dox lenn lu dul lool mënuñu doxal lenn lu dul lool wax ji ci wax waaye nag jëmmi dox gi moom ñun gone yi yéen man tax fi mu ne wees na dontuma gone kenn ñoo maam it ñii ba laqee juróom fukki at ak juróom jëm kaw sëñ bi doo doo gone kenn doo ah? duma ko fi dundal kon yéen yéen war a jóg fu ne yéen a ngi bàyyi keneen jiite leen doom yi kooko naw nar ñëw yilif leen ak seeni doom ñu ne nii rek di xoole ak li borom taa liggéey fii ci réew mi ak li liggéey fii ci réew mi nun rek lañ leen di fay spectateur di xool rek ñuy def loolu dong lañ lañ leen mën a fay képp there is nothing else you can ah, ne dafa am lu mu tudd léegi ne consultant ma bëggoon ci indi firnde ndax bu ñu déggee jëne mu sàmbakat nee na consultant la ana lu muy def politique du sama métier benn firnde laa ci mën a joxe wala ñaar nag joxe ñaar benn bi mu ma déggee ñu ne ñi ngi def Ila Touba. jóge cees jëm si Touba ñu ne huit cent de dollars lay war a jar mu ci bég lool kenn ko daal fottasu fëgg sab dën ñi ngi ñuy defaralub tali mel ni sa yoon yow sa yoon dacaa ne sa yoon new ca otob xalifa bu fa jaaree day fay otob xalifa général bu fa jaaree day fay sa woto waxi noppi fay ga nag xamagoo sax ñaata la ñu jël marché ba joxuñ ko waa daaru Muxti joxuñ ko waa daa genn daaru ay jàmbur ay étranger lañ ko jox waaye taqal nañ la ci tur illaa Ila Touba ngay nang-nang ba ma déggee loolu man dama ne wax ak samay nit ay financier ma ne leen ndax mën nañoo def lii ci anam yi ñu ne ma man leen dama bëgg illaa Touba diggante Thiès ba Touba dañoo proposé huit cent millions de dollars defar deux fois deux voies su ma jumul man dama bëgg deux fois deux voies ak autorail saxaar bu jóge Thiès ba Touba yokk ci deux fois deux voies maanaam ñaar ñaar ñaar yoon ñaar yoon ngay yi dem dikk négocier ne na un milliard négocier bañ nangoo tënk ci huit cent millions de yi walaay lancé ma ak koor gi nangu nañu def deux fois deux voies ak Ouattara ci huit cent millions de dollars yi ñu nar a defee deux fois deux voies dong bàyyi saxaar gi wax naa ko ci mbooloo bu dul fii jàmmalaay laa ko waxee boobu maa ngi yor naa archive yi nañ ma woo yor naa archive yi àdduwuñ ma ba tey jii may wax ak yéen nag xëy na loolu wéy na fi mu ne kon sama nekk gi ma nekk di nekk consultant proposé woon naa loola en le le vingt cinq janvier deux mille quinze laa ko proposé le vingt cinq janvier mille quinze naa ko def suñu YouTube incha allah laa proposé loolu ñaareel ba mooy fi mu ne nii yéen a ko seere ak yéen ñi seetaan ak ñi ko nar a xool yi ëllëg bu ñu bindoo murit yi bindu ba am deux millions et demi de personnes ñu ubbi société bu xilaafa gi moom. xilaafa gi ak xilaafa yi gravité autour du xilaafa bu ñu bindoo deux millions cinq cent mille personnes kenn ku ne di fay at mu jot cinquante mille francs Touba gi yëpp sa kër dootoo weesu at mi cinquante mille francs Touba gi dañ ko taal Daaru Muxti dinañ ko taal Taïf ak Bayla ak feneen ak feneen déggu li ma wax de sa facture courant dootu weesu cinquante mille francs par année li ma wax leer ci rajo laa ko waxee. lenn ci dul bokk mooy climatiseur mooy ventilateur ak ay frigidaire ak ay congélateur lu ne mën bu la neexee branché ko ci cinquante mille francs par année maam indi samay américain ñu def ko fii Touba Touba ak Daaru xoolal nag yow fi ne li ngay fay ci courant ñaata la mën naa ko def tey jii may wax ak yéen bëkk bi laa mujj wax ak ñoom pare nañ pour ñëw fii def fii centrale électrique bi nga xam ne loolu lay alimenté yemal ci Touba ak Darou Moukhty dong de mën nañoo dem ba Tivaouane danañ ko transporter distribuer ko Tivaouane taal fa téeméeri kër Ndiassane taal fa téeméeri kër si nga mate na ko ak ak ak Niassène ak ndax fief religieux yi dafa bari lu aju ci ñoom léegi nag fi may tëje mooy <coughs> daayira yi États-Unis d'Amérique ñun dañuy wax laïcité ci Sénégal buñ ne république laïque la ci la ñuy fexe ba galgal yu baree baree bari di ñu nax États-Unis système bi dafa demee noo xam ne boo yoree ab fondation yow nga yor fondation bi man may liggéey ci barab ne dama bëggoon kat at mu ne wala sem xam nga états par semaine la ñuy fayi ko nga ne cent dollars yi ma naroon na fay état fédéral bi par semaine. dama ko bëgg jox fondation bi par semaine gouvernement fédéral bi noonu leen d'accord nañu léegi kon cent cent dollars bu ñu ko jox dañ koy génne ci impôt bi nga naroon a fay kon jàppaleel église bi kon ñoo ñaar moo ñaare nañu église ci seen biir système ñun nag ñoo naan diine jaa ngi nii réplique baa ngi nii waaye su magal jotee ñu ceeb bi ñëw na daa defi de daa <laughs> dendi xaalis mel ni loolu da nga ko war loolu sëñ bi moo tax état ne fi yow yaay état yow yaay état kenn du état yow yaay état état yow a yow mi ne fii feneen foo ne ci biir Sénégal yaay état boo amut état du mën a am ministère de l'intérieur du mën a taxaw ministère des finances du mën a taxaw faaw ngeen waxtaan waxtaan yu demee nii li may wax yéen ñëpp xam ngeen wax dëgg yàlla waaye nañ koy yaatal. nañuy bàyyi conférence yoo xay yi sëñ bi jul na ci géej gi loolu fi ne yàq wax bu yàqu la ñëpp xam nañ ko ah li ñu war a wax mooy ni ñuy def segam jikko yi dañoo yàqu gone yi dañoo yàqu waaye dañoo war a dañoo war a am formule wala solution nañ jël nax jox daayil xaaj jàngal gone yi waaye dañoo am cycle élémentaire nañ jël nax jox jàngal ko gone yi jël Mawaahibul Xuddoos wala Masaalikul Jinaan jox ko universitaires yi wala lycéens yi c'est très ban téereb Sëriñ Tuubaa lañ jàngale ci biir système éducatif bi amut 57 ans ñuy nërëm nërëm yi loolu dafa war a dakk sëñ bi ban téereb borom Tuubaa lañ war a lañ jàngale ci biir système éducatif bi nii loolu dañu fa mën a jàng na na na joxe daal xaar ci gone yi c'est dañ dañoo bëgg a préserver gone yi réguler système Euh, li nga xam mooy télévision yeeg presse yooyu xam luñ ciy wane nuñ koy wone kañ lañu koy wane hmm? jàngale mooy bil xudas ci tawhid ñu ngi am ay branche yu ñu tuddee philosophie falsafa nañ jàngale yooyu ci sëñ bi keneen ku am téere falsafa nga indi ko ñu xool ko jàngale ko waaye segam waxuñu jëm ca doxuñu jëm ca moo lay won ne bëgguñu cee wax bëgguñ cee dox mais loolu foofu la débat bi nekkee lii nag ñoo ko mën a dindi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Mbaye ma ñu ngi lay sant bu baax euh, lii ngeen may laaj yéen a ma gën a xam waaye diversifier nii moom wax dëgg yàlla lu lu am solo la lu baax la ngir nit ñi gën a xam bokk yi nga xam ne bëgg nañ ko yàqit nan fexe nun ba jéem koo téye Sëñ Tuubaa kat murit saadix la wax muridun saadiqun mahabatu cheikh rifqa yaqinul qalb dalilun sabrun imtisaalul awaamir daawamun alaya qalbun salima juróom-ñetti melo yooyu la wax rifqa nag mooy àndandoo bi bëgg di yëkkateendoo di dóorandoo ci tënk ci wolof te sëriñ bi noonu mu ko wax tënk yéex ma batu cheikh rifqa yaqinul qalb ba ba imtisaal lu ca ne moo ci jiitu lu ci ne moom moo ci jiitu mahad mahabatel muxtaar dina xubil mawaani wala xaniini wala walada moo ci jiitu rafiqi kitaabulaahi wa mustafa nabi kon moo ci kon damaa defee ne noonu danoo war a wees fu ñuy naxe fi ne ndax màgg nañu ay mag lañu jàng nañu tukki nañu lu ci ne am jàng la tukkim njàng tukki dong am njàng la kon ñoo ngi leen jéglu di ñaan kilifa yi dëkk bi yàgg fi loolu yàgg noo digal ñu yàgg leen topp seen digal saabiqu ilaa laa rabbikum wa jannatin abdoulacar ismail wal ard ahdal lazina amanu billahi wa rasuli dalika fadlullah yuti man yasha wa la fadlun alim asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëmoon ci mondialisation te yaakaar naa ne sax andi nga ci yeneen yoo xamante ne yitti woonu woon nañu xam ko tey jii nga baaxee ñu ko mu nekk waxtaan boo xam ne waxtaan am solo la xam naa ne ngir njëkkanteeg waxtu bi rek dañuy jox suñ mbokk moo xamante ne tamit ci lii lay yëngatu ñu koy wax Oustaz Nguer mu jiite bokk ci ñi nga xamante ne ñoo sos kuréel googu ñuy wax suñuy mag nga xam ne ñoom fésal liggéey yu mag ñi moo leen tax a jóg xam naa ne démb ak tey yëpp mu ñëw ngir bokk ak ñu jotaay bi. xam naa dañ koy jox mu tënk rek ci lu gàtt benn commentaire boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu sunu sang bi toog di Cheikh Mouhamad Moustapha Mbacké mbégte gi ñu am mënuñu ko wax mbokk ya ngi wax sax ni doon ñaan nañ ci wax waaye dama doon ñaan yàlla na continuer ba mu jeex ngir yàlla ak li rot ci xam-xam nga defee ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla di nuyu itam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo sabab lii di mu assasa al wafa sunu mbokk Mouhamad Mbacke sëñ Ahmad Mbacke ak ñi mu àndal ci liggéey bi yëpp. di liggéey bu am solo xam naa waxtu bi dafa xat ñun ñu ngi fi teew ci groupe de presse bu ñuy wax suñuy mag di liggéeyal mag ñi euh, dafa dugg sax ci thème bi nga doon waxtaanee di awlama euh, ndax maa ngi gis ci sa biir waxtaan yaa ngi tudd yenn saa nga tudd baatu anglais tudd tubaab tudd arab te ñun ci ñu ngi yëngu ci loolu maanaam nan la ñuy def ba li fi mag ñi bàyyi jàngale mag ñi. ñu wone ko ci façon boobu moo tax groupe bi am na ñoo xam ne ci anglais la ñuy wax ci la ñuy bind am ñuy wax français am ñuy wax arabe moo tax ñu bég ci lool euh, li nga fi wax tey nag li mu ci dégg mooy waxtaan bi bu fekkoon ni mënoon nañu fexe ba yóbbu ko ci étape bu ko àdduna mën a jotee dañ ko def ndax yàgg nañ toog ci bërëbu di gëstu xam-xam aussi di bind mais dimension bi nga fi bi nga traité thème yeeyoo na àddina bépp jot ci euh, fi may wax tuuti rek mooy benn baat bu am solo boo wax ni mondialisation oto la vitesse bi mooy politique loolu jaadu woon nañu bind ci téere ndax boo ne vites bi mooy politique te ku ne xam na ni oto su vites bi dawul du dem te àdduna foofu la toll loolu liñ ci mën a dégg mooy rijaalu diin euh, faaw ñu def musaayara maa mi taqaddum maanaam awlama boobu bu fekkee ni nitu diine yi dañoo seetaan ak saasa yaani rijaalu siyaasa bu ñu leen seetaanee awlama dina étouffé dina étouffé diine dinga bëgg a julli doo ko man di nga bëgg jàmm yàlla doo ko man parce que da nga leen bàyyeek liy doxal te àdduna foofu la toll ndax bu njëkk dañu waxoon ni mbedd mi ëtt dafa am léegi mbedd amatul mbedd maa ngi ci biir kër gi parce que dootoo tëjal euh, kër gi boo tëjee kër gi li ci mbedd mi fekk si la ci biir parce que portable yi àdduna ngi ci euh, lépp àdduna ngi ci kon wax bu am solo la dafay indi benn baat bu ñu bu ñu déggoon ci almashiqa la budda laha min siyaasatil muluk maanaam képp ku li ñuy wax wàllu diine wàllu cëriñ suñu bàyyee politique yi dem diine bi dem euh, lii ngaañte ci diine ji lay dal bu defee loolu lu bari feeñ na ci mooy kon faw rijaalu diin jël seen matuwaay par rapport ak loolu te xam ne àdduna foofu la toll suñ ko bàyyee ak ñoom dinañ bëgg liggéey lislaam mu te ñu ci yonent bi wax dafa waxoon ni kullu mawlidin yuladu ala alfitra fa a abawaa yu hawidaani aw yu nasiraani aw yu majisaani mais léegi aw la ma mooy quatrième position bi parce que dafa waxoon ni ku juddu indaale yàlla leneen loo ñàkk sa wajur la ko xañ léegi même bu jur bi taxawee awla ma ñëw na nekk comme kii parce que loolu li mu mën sax wayjur yi mën a tudd moo tax wax dëgg yàlla waxtu bi moo xat moo nu ñu yaatal mais ñu feeñal suñu mbégte bu jéggi dayoo ci façon bi nga traité thème bi incha allah taala ñun ci suñu niveau nu ñu mën a def ba àdduna jot ci wax ñu Sénégal mais ba àdduna jot ci ak euh, support yi ñu yor yëpp ci français anglais arabe ndax euh, cours magistral nga fi nga fi nga fi nga fi wàcc tabarakallah Euh, di bég nag wax dëgg yàlla mbégte gu ëpp parce que ñun xam-xam daf ñu ñor trop waaw xam-xam daf ñu yitteel lool te déglu naa ko xam-xam pire la niveau bu am solo la ko defee di gërëm mbokk yi nga xam itam ñoo ñu baaxee lii di wax ni lii rek moo mën a euh, régler problème bi mooy il faut ñu formation am formation rek moo mën a régler problème bi te lii ci camp formation yi la bokk defee kon yàlla na yàlla saxal ko yàlla yokk ko ci barki kilifa yi tabarakallahu mbir mi am na solo ñu ngi balu ak ñëpp Euh, di wax ni groupe suñuy mag comme ni nga ko déggee ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu ci li ko tax a jug rek ñu ngi Dakar fu la ñu basé mais nag ñu ngi xeeñtu li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi ci wàllu jàngale wàllu leer actuellement am na groupe bu nekk Touba ñu ngi fii di jël si daara ji ndax wax nga ko sànq seen Touba julli na ci géej gi loolu dootul dootul dootul dootul débat bi mooy enseignement bi nan la ñuy mën a def ba fexe mu wëy ak ni àdduna di doxee te ni nga jàngalee bu nu defee noonu àdduna du ñu raw tabarakallah kon ñu ngi lay ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, waxtu yi dafa xat wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Oustaz Nguer ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne moom nga def ci li sëriñ doon waxtaanee xam naa ne ci turu mu assasatul wafa yi bi xooxul imaan ñu dellu rek santaat sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké dellu ko ñaanal tamit ci liggéey bi nga xam ne ci la soobu te mooy Euh, liggéey bi nga xamante ne moom la ko waajur yi bàyyee woon rek mu àggale ko fu kaw ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah ci altine ji fas yéen nañoo dalal euh, ancien ministre Serigne Bassirou Sarr ci muy waxtaani njariñul garab rawatina nihma ak nebedaay ginnaaw suba incha ci talaata ji ñuy fas yéene ànd ak professeur Madiama Niang ci alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha muy mbindum Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bañ wàcc wàll am ak yan meññit lañ ci mën a jële bu dee ci àllarba ji incha allah ñu fa yéene ànd ak Sëriñ Galas Jatara ci dawrul madaris alquraaniya wa atharuhu fil mujtama as-sénégali yi muy rôle bu am solo bi nga xam ne daara alquraan yi joué nañ ko ci def maanaam jeexital koo xamante ne daara Alxuraan jeexital nañ ko ci njabootu Sénégal bu dee ci alxames ji incha allah sëriñ Abdul Ahad Mbàkke la ñuy fas yéene àndal ci tomb am solo muy alxuruur di waru bu dee ci ajuma ji te mooy bis bi nga xamante ne ci la ay bis bu ñaareel gi di jeex ñu fas yéene cee ànd ak sëriñ Muhammadul Habib Gaye ci alxikam alxadimiya muy xikam yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul xam naa ne ñu fàttali mbokk yi tamit ñi nga xamante ne bëgg nañoon topp ci internet bi euh, wala ci télévision yi ak rajo yi ñu fàttali ne Touba Vision ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ci YouTube bi ba tey Baol Média bu dee ci télévision yi Al Mouridiya wala Touba ak Lamfal TV ak Mourchid TV bu dee ci rajo tamit Darou Moukhty FM ak ñaaxeen FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ba tey tamit euh, ñi nga xamante ni dañ ko tegaat RTS Touba Lamp Fall euh, Touba ak bu Dakar diisoo ak euh, RTS ak Walfajiri ak RFM ak Sik FM ak Benno FM ak Jant bi rajo yooyu yëpp ku ñuy topp rek ak ICAP rajo yi yëpp rek képp koo xamante ne déglu nga ko mën ngaa ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal ci béréb tël bi kon ñu dellu santaat rek mbokk yi nga xamante ne ñoom lañ fi daloon tey muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu baaxee tey jii dellu santaat tamit sëriñ bii nga xamante ne mooy Oustaz Nguer ñoom ñi nga xamante ne ñëw nañu ngir ànd ak ñun jotaay bi te seen liggéey lépp jëm rek ci tasaare liggéey bu sell bi nga xamante ne suñu mag ñi bàyyee nañu ko ñu mën koo tasaare ba ñëpp jot ci mën koo jëriñoo ñu ñaan yàlla fay leen fay goo xam ne dana kawe seen njot